suuf sunu frontières yi ak sunu ressources naturelles yi ni démb waxtaane nañu ko yéene kaay gi di ñu xëy fekk fa njiitu di Macky Sall ni démb daat nay wax soldat tigi nan la war mel daat nay wax soldat yi ñu moytu lépp loo xam ne jëm na ci wàllum média yi ak wàllum réseaux sociaux yi yéene kaay gi di Direct News lu jëm ci wàllum document confidentiel colonel Antoine Wardini daat nay avertir ñi nga xam ne ñooy auteurs yi maanaam ñi nga xam ne ñoo inquiétude am na ci biir armée bi war na ñoo jël ay dana lal ko ñi nga xam ne ñoo def googale giraawale waaye nag loolee sax su amee mën nañu ko jàppe ne faayi am na ndax am na document yoo xam ne kenn waru koo gis ci mbedd mi yéene kaay gi de la sa nee na Pape Alé mi nga xam ne teg nañu ko loxo kuréel gi ëmb taskatu xabaar yi ak avocat Pape Alé Niang tey jii danañu waxtaan xool yan pexe la ñuy ngir nag ñu daal di koy libéré yéene yéen kaay gii di Le Quotidien yi jamono ji ñoom mënutu ñoo ñàkk a wàññi yéen kaay gii di Les na gouvernement bu Sénégal ñoom wax nañu lu leer ndax nee nañu bépp commerçant boo xam ne lànk ba sa naaj nga def bañ a wàññi ay daan danañu ko lal ci sa ndodd tey ji la mbir mi di commencé yéen kaay gii di enquête nee na ñi nga xam ne ñooy détaillants yi dañoo lànk ba sa naaj wa bañ a wàññi yéen kaay gii di L'As na liggéeykat yi nga xam culture yéen kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa Alioune Tine moom nag nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat dootu ci waxate ndax position am ak lim ci war a wax lépp wax na ko ci jamono ji nag ndaw ñi ñoo war a jël relais bi moom Alioune Tine daat nay wax ne Macky Sall ci boppam moo war a dajee ak mbooleem leader politique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal waxtaan ak ñoom balay caaf di xëma yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak nemmeeku ma nga woon ca diwaanu Tivaouane ñaareelu étape bi waaye nag xam ne fa la Ousmane dema maanaam policiers yu baree bari la ñu fa daal jàll yéen kay gi di las nee na Tiwaawan dafa fees delli ki policier Ousmane Sonko démb ba treize di jot la agsi fi nga xam ne mooy Tiwaawan julli ajjuma ma ngi ko julee ci zawiya Serigne Babacar Sy ba mu pare nag imam Serigne Mansour Diouf daan na koy décorer daan na décorer Ousmane Sonko jox ko ab kaamil yéen kay gi di réew mi quotidien xëy seeq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Jaw Jóob di di artiste musicien di compositeur tamit jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci biir musique bi waaye nee na bépp problème am na solution daan nay indi tamit ay leeral ci style musical am bi wax na tamit lan moo tax saa nekk muy way lu jëm ci wàllu mbëggeel ndax nee na adduna bi lépp mbëggeel la yéen a kaay gi di esata nee na Aliou Cissé gaynde yi nga xam ne ñoo war a jongante coupe du monde Qatar Saliou Ciss du sa bokk Sadio Mané mi ngi ci liste bi naam blessé na yéen a kaay gi di sunu lamb nee na jamono ji dem na retraite te du si deltu ginnaaw ndax li ko war jamono ji maanaam mooy accompagner gunge ñi nga xam ne ñooy ay rak